Assalamualaikum warahmatullahi rahmatullahi taala wa do Ahmad ngi tuddu ahmad Diagne. Burdu téere la liko waral moy ben jaamu yalla bu baax nitu yalla bu baax mo tawaton ñu nan ko Mouhamadul busairi ci tawat bobu mu ne dal man dana def len. moy ki gën ci mbinde fi dal dana fente ay way sos ko bindu ko ci ngir sukkandiku ci lolu febar bi nek ci man nat bi yalla tek sama kaw yalla dindil mako ko teggil ma mu def lolu di tagg yonent sallallahu salaa wasallam ci bir gént gi mu gis yonent bi salaa sallam diko solal manto jangoro bi wer mu tuddu bur'a ah indi waral wer gi waye burdu bi biko manto bi ko yonent bi salaa sallam solal lolu mo ngi tekki ni way bi daraja yamu ci beggone yalla defal nako ca alhamdulilah rabbil alamin loolu nag ci loolu la nit ku baax di maam alhaji malik si nga xam ni moo sos gàmmu fii ci réew mi ki naan alhaji abdoulaye ñas kilifa gi wax na fas demoon fa biir gis ni waa di gàmmoo ni ñuy màggale yonent bi saa sallam mu fekk ni ñoom dañuy jël burdu bi fukki fan yu yi ñu ko wooy ko tagg ci yonent bi sallallahu kañ kañ ko tabaarakallaahu bu ko defee booba euh, fukkeelu fan bi ak benn ñu noppalu fukkeel bi ak ñaar mooy guddi bi nga xam ne moom la ci taarix li gën a siiw ci moom la yonent bi sallallahu gane àddina mooy fukkeel bi ak ñaar ñu màggal guddi yonent bi sallallahu ñu def gàmmu euh, fekkonte ni nag ñoo nit yàlla yooyu dañoo taamu taamu woon ne fu seen kilifa wala seen sëriñ tek seen tànk bu teggee ñoom ñu donte sa tànk yi du tolloo waaye ñu teg fa moo waral nag bëgguñoo wàcc lenn wàcc lenn loo xam ne lu ñuy roy ci seen kilifa yooyu wala ci seen sëriñ yooyu moo waral nag ñu daal di tànn burde di ko woy fukki fan yu njëkk yi. alhamdulillah rabbil alamin Cheikh Bousriou c'est quelqu'un qui est un grand érudit. Il a été affecté par une maladie qui l'a vraiment fatigué. Dans sa retraite spirituelle, il a fait allégeance au prophète Mohammed. Il implorait pour soit soigné. Dans sa retraite spirituelle, le prophète, l'a vu en rêve et cela lui a permis de guérir. Et au sortir de ce rêve, il a inventé une chanson qu'on appelle le bourde, que, qui renferme beaucoup de thèmes sur la religion musulmane, en particulier pour en tout cas parler des bienfaits du prophète. Et c'est de, de, là qu'est venu le bourde. Et là, je m'allais ici, Khalif général de Tijane, ça est inspiré tellement que c'est important. Il en a fait une constante pour faire le gamou au Sénégal pendant neuf jours à retracer les chansons de Cheikh Bousri, qu'on appelle le Pout. Pendant dix jours, alors on arrête et le onzième jour maintenant, les gens se retrouvent ensemble pour vénérer le prophète qu'on appelle le, le, le, le Gamou. مولا يصلي وسلم دائما عبادا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يصلي وسلم دائما عبادا على حبيبك خير الخلق كلهم أبان مولد